برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان Votre serviteur euh, s'appelle Ahmed Tidjan Tchao. c'est le préfet du département de Kaulak. Euh, je voudrais tout d'abord euh, me réjouir de la tenue de ce comité de développement départemental euh, consacré sacré aux préparatifs de l'organisation du gamo annuel de Medina Bay. Un CRD que nous avons organisé à la demande du COMAF, le comité d'organisation des manifestations et activités de la FAIDA, euh, de concert avec l'organisation Jamaïet Ansaruddin. Euh, la tenue du CDD s'explique de plusieurs manières. Euh, pour l'autorité administrative que nous sommes, c'est une façon de traduire tout le respect et l'attention que mérite le foyer religieux organisateur Medina Baye. Certes, il s'agit d'un événement de foi euh, qui a toute sa place dans notre pays qui s'appelle le Sénégal. Un grand pays de foi. Mais au-delà de cet aspect religieux, nous le savons tous, euh, Medina Bay, c'est un foyer culturel rayonnant. C'est un foyer qui joue un rôle important dans l'éducation et l'orientation de masse. Nous avons tenu donc euh, le CDD pour prendre toutes les mesures qui conviennent, je ne dirais pas pour une bonne, mais pour une excellente organisation du GAMO édition 2022. Euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un exercice d'harmonisation, de mutualisation de tous les moyens qui sont disponibles au niveau du département, au-delà, au niveau de la religion. Tous les moyens qui peuvent donc euh, contribuer à la bonne organisation de l'événement je dois dire tout de suite que tous les aspects ont été pris en compte. À titre indicatif, bien sûr, nous avons commencé par les questions de sécurité. Donc euh, la police, la, gendarme, la gendarmerie, je veux dire, notamment, vont jouer pleinement leur rôle pour la sécurisation des personnes et des biens. Euh, mais quand on dit organisation d'un événement comme la naissance du prophète, c'est également toute une logistique de nature diverse. Donc, euh, qui fait appel à la mobilisation de certains services publics l'électricité, l'eau, l'assainissement. Donc tous les services dédiés ont été mobilisés. Euh, la Sénélec, CNO, la division régionale de l'hydraulique, euh, l'ONAS, l'assainissement, l'UCG, le service d'hygiène, le district sanitaire, et j'en oublie. Le tout notamment avec le concours des autorités locales, notamment le président du conseil départemental de Kaulac et le maire de la commune de Kaulac. Nous ne nous sommes pas réunis en réalité pour faire des promesses aux organisateurs. Nous nous sommes en réalité réunis pour faire la revue de tous les moyens qui ont été mobilisés lors de la précédente édition et ensuite faire une projection sur l'édition en perspective. Donc nous repartons sur des engagements très fermes à réaliser effectivement tout ce qui a été arrêté ici, bien évidemment en relation avec euh, le gouverneur de la région. Compte tenu de la dimension de l'événement, vous le savez, le Gamou de Medina Bay est loin d'être un événement simplement régional et non pas même national. C'est un événement de dimension internationale. Par conséquent, aucune précaution n'est de trop dans de telles conditions pour la sécurité des personnes et des biens, mais également leur confort au maximum sur le site. C'est une occasion qui nous est donnée euh, pour également exprimer nos salutations chaleureuses et fraternelles à l'autorité religieuse suprême, je veux dire le calife général de Medina Bay. Nous voulons euh, saisir l'occasion pour lui traduire tous nos sentiments de respect, euh, d'estime, mais tout simplement de déférence. Euh, pas seulement pour euh, sa position religieuse, mais pour le rôle éminemment important qu'il joue dans le département et dans la région. Un homme très courtois, un homme très responsable, un homme très ouvert d'esprit qui s'est communiqué sur les questions de l'heure avec une approche pédagogique particulièrement remarquable. Un homme qui sait dire des choses essentielles sans verser dans les détails, sans blesser qui que ce soit, sans frustrer personne. Euh, des hommes de ce profil, des âmes de cette dimension, la région en a besoin, le Sénégal en a besoin, le monde en perte de repère, en a besoin des hommes qui incarnent à la perfection euh, les valeurs cardinales que nous avons. Voilà donc les quelques mots que je voulais dire en France. Je wax de développement mooy rek bu ñu dëgmalee lu ñu ñor lu ñu soxal ñun ñi nga xam ne ñoo fi ne yore ay service ci wàllu administration dañu koy pencoo waxtaane ko ngir mën a jël sunu matuwaay ngir mën a jël ay dogal bu tey bi nag ñi ngi ko jagleel euh, gàmmu Medina Baye ñu dajaloo ne dañuy def CDD ndax xew-xew boobu dafa doy ci ñu wax ne xew-xew bu ñu ñor la xew-xew bu jara bàyyi xel la xew-xew bu amal njariñ diiwaan bi la bu amal njariñ réew bi la bu amal njariñ àdduna bi yépp ñu lëngoo ko nag ak ñaari bankas ci ëtt bi ñu né benn bi di komaf nga xam lepp lu fi xew-xew di yëngu-yëngu ci kër gi ñokoy nosé diko di dox diko wax ba kilifa yi am liñ ci bëgg àndandoo ko itam ak kurel gu nga xamantene ni mom lañuy wax ansar din nga xamne sen tour euh, doyna ci wax lan moo leen tax a jóg ak ci lan la yëngu ñu fas yéene doon ndimbal rekk ci diine gi ak lépp lu soxal diine gi. ñu ànd ko ak ñoom ànd ko ak mbooleem service yi fi ne doon waxtaanee matuwaay yi nga xam ne jaadu na ñu jël ko ci bés bu mel ne gàmmu Medina Baye waaye lépp nag ci déggoo ak yeneen ñaari kilifa yu ñu bokkal dëkk bi. muy président conseil départemental euh, Ahmed Youssouf Benjeloun ak itam maire bu Kaolack sëriñ bu euh, gudd gàtt daal dajey wat gaal yëgoo la rek lépp lu nga xamante ne nii war na yemb war nañ ko teewal ci bés bi ñu waxtaane ko xool ci ban anam lay gën a rafete bàyyiwuñu nag benn fànna tàmbalee ko ci ngaara ci kaaraange ndax bala nga ne naam ne fa euh, police ak gendarmerie ñeneen ñi ngi ko seqal yëpp lu nu war a jël ci matukaay sàmm nit ñi ci seen jëmm sàmm leen ci seen alal jàppaleen ne loolu lañ tënk fii ak li mënta ñàkk ndax itam fu ay nit di daje day am yoo xam ne foog ñu sóoraale ko ngir nekkin ba mën a baax lu jëm ci courant lu jëm ci ndox lu jëm ci seetal dëkk bi seetal dëkkuwaay yi leeral dëkk bi toppatoo wér-gu-yaramu nit ñi yooyu ak yi ni mel moom lañ doon waxtaane ma wax rekk ne jàpp leen ne daje woon daje woon ngir diggante dañu daje woon rekk ngir takk suñu ndigg lépp lu nga xamante ne nii jaadu na ci te nekk ci suñuy loxo ñu fas yéene ko teewal bu nekkee ci loxo gouverneur mu fas yéene moom itam def ci wàllam bay waaram bu fekkee ci suñu loxo ay kilifa la ñu jotal leen ko ñu xam ne nangam dina fi baax ñi ngi sàkku ci yéen ngeen jàppee ci ci anam bii kon loolu moo doon soloy jotaay bi ma wax ne dañu sawar nag ci di ko def ci penc bu mel ne bii pencu Medina Baye xëy na kàddu yi may yëkkati nekk occasion ma yëkkati ay kàddu nuyoo kàddu ziyaara jëmale ko ci kilifa gi nga xam ne defe naa ne lu yëngu li ko yëngal moo ëpp doole muy le xalif général de Medina Baye mu doon occasion ñu nuyu ko kon sargal ko ndokkeel ko waaye yeesal ko suñu cofeel feddali cër bu ñu ko cëral ak orma gu ñu ko ëmbal ngir lan dama ne du rekk toogaayam en tant que kilifa diine waaye dafa nu amal njariñ dafa ñu amal njëriñ ci ne d'abord nekk na kilifa goo xamante ne ni kilifa gu gu neex deret kilifa gu nga xamante ne nii jamono bu àddoo yaakaar naa ne ci farata lay wax euh, kilifa nag fawu muy soññ fawu muy fàttali fawu muy joxe ay tegtal waaye dama wax ne façon bi mu koy defe nag moo jara bàyyi xel te mooy bu ñu waree wax dëgg ñun ñëpp ku mu mën a doon ci ñun dina la wax dëgg su la waree fàttali dina la fàttali waaye du la gaañ loolu moo yombul wax nit dëgg te doo ko gaañ fàttali nit te doo ko gaañ ma wax ne loolu anam bu mu mane la doon nit ku mën a jël ay responsabilité jamono boo xam ne mbir a ngi xew ci réew mi walla ci àdduna bi loo nga xamante ne ni yell na mu sànni ci kàddoom da koy def ci anam boo xam ne bu daaneelee nga xam ne waxam gi moo gënoon noppeem loolu daal mooy yenn ci ma bëggoon a tënk di len gërëm di len sant alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammad ibni abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabiina wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm ddin ya himmat alcheikh yuxdiri lana bi hada almaxdari waltaatu fi bi nadratin taati lana bi dafar ñi ngi sant yàlla ci làmmiñu xadratul kamal ci bés bu tedd bii nga xam ne dañ fee dajee tey ci Medina Baye di fuglu di préparer di waajal gàmmu Medina Baye 2022 euh, incha allahu taala mu tolloog 1444 ci hijriya li ñuy njëkkee mooy sant yàlla ci may gim ñu may cheikh al islam alhaaj ibrahima Niass radiallahu anhu nga xam ne pays bi moo ko samp tuddee ko Medina yonent bi sallallahu alayhi waaye gàmm gi moo ko sos mës ta taxaw te du taxaw ba péncam yàlla dundam lépp mu jox ko yoon sallallahu alayhi maa ngi fàttaliku tukki moom tukki mu sori ci Raxla Konaakiri ya weeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam di waaj a teru mu woy woy ne qalbi dawaaman bi medina arqubu chahr alhabibi is arahu yaqrub ci làmminam ak ci ndigalam ci la komaaf ootee jotaay bii tey ñi ngi gërëm mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi kon nag Medina yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ tuddee Medina bii kon gàmm lañ jëm war nañoo waxtaanee gàmm gi lu jiitu loolu nag mooy ragal yàlla mooy maandu mooy njub mooy jàmm mooy salaam moom la Cheikh Ibrahima oote moom la yonent bi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam kon avant ñuy wax ay préparer nit ñi ak fu ñu nekk ak yooyu dañuy fàttali suñ bopp fàttali ñëpp mbooleem taalibe yi ak mbooleem ñuy seetaan ak ñuy déglu kene pays bi pays xam-xam la pays ragal yàlla la ñu ngi delloo génération bu bees bi ci Cheikh Ibrahima mi nga xam ne référence la ak képp kuy roy Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu fexe occasionné ci gàmm gi footaat jikko yi defaraat xol yi defaraat jikko yi defaraat ite yi pour yokk suñu lislaam yokk suñu gëm yàlla. bu loolu weesoo nag euh, comité bi dajee na ay yoon mais ote nañ tey CDD ñu ngi remercier préfecture ñëw nañ ci njiiti euh, ki nga xam ne moom mooy monsieur le préfet wax na léegi ngeen dégg moo adjoint ak mboolem ñi ànd ak moom ci service yi ñëwoon. comment fa nga leen di remercier wax di wax ne waxtaan nañ ak ñoom waxtaan nañ ci domaine yu bëri lépp loo xam ne ne jàpp nañ ne. soxal na askanu Sénégal askanu Kaolack askanu Medina Baye ak liko ko waxtan waxtaan nañ ci loolu yëpp ci lu ci santé ndax bo wérul do mën lu bari ci lu ci sécurité ci lu ci environnement ci lu ci eau ak électricité ci lu ci organisation ci lu ci euh, tatagal gan yi ci lu ci yani culture culture nga xam moy xam-xam bi moy naka lañu ñu lepp dal ci gattal baña guddal motax aguma ci yeen commission yi lepp waxtan nañ ko ak ñom lépp loo xam ne nii pays bi soxla na ko gan yi soxla nañ ko dëkkandoo yi soxla nañ ko taalibe soxla nañ ko sëriñ bi bëgg na ko wax nañ ko ak ñoom ñoom it tontu nañ ñu ay tontu yoo xam ne nii dal na xel ah ba pare jël nañ ay engagement ñun tam déglu nañ leen bu baax jël nañ engagement ñun it pour defee liñ liñ sàmmante kon ñu ñëpp nañ gën a farlu góorgóorlu xam ne lu ñu def rek suñ bopp lañ ko defal waaye yàlla yàlla la ñeel ak yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee itam may ma tuuti su ko defee itam lu aju ci wàllu ndox mi ak euh, courant bi ak yi mel ñi ngi gën a yaatal askan wi di ñaan ñi ne ci COMAF ñu gën a yaatal askan wi li nga xam ne moom lañ laaj ñu jox leen ko ñu jotal leen ko ba mu nekk occasion boo xam ne dañ ci yërëmaale doomi aadama yi nga xam ne amuñ ndox wala amuñ courant wala jafe woon na lañ pour ñu abonné ko ñu jàppandal leen ko parce que loolu la sëriñ bi santaane te la loolu la loolu la COMAF bëgg itam bu loolu weesoo tamit li nga xam ne mooy li jëm ci taalibe yëpp ak ci dëkkandoor yi tamit ñi ngi exiger bu baax di ñaan waa COMAF lañ daan def rek ñu gën koo yokk waaye tamit service yi gën a taxaw bu baax loolu laa doon wax ci lu aju ci côté boobu. beneen côté bi ci topp mooy buntu sant yàlla rek la yàlla def na taxawaay bi rafet na ci côté préfet ak ñim àndat ñu ngi nuyu monsieur le gouverneur bu bees bi di ko dalal bu baax. di yàkkamti gisanteeg moom ci dëgg di yàkkamti xaar ko ci CDD bi CRD bi ñëw incha allah ñu fekkee ko ci jàmm ba ci réunion nationale bi allah. waaye itam maa ngi wax ne wax naa ci jotaay bi ne maa ngi gërëm waa COMAF ñoom ñëpp samay adjoint sëriñ Aliou Niang ak mboolem ñu ci topp euh, Alaaji Mas bi tey ak euh, Cheikh Tidiane Gueye bi nga xam ne moo doon doxal jotaay bi doxalee ko doxalin bu rafet ñoom ñëpp gërëm naa leen gërëm naa leen tamit ci gàmm gi weesu nga xam ne fekkee ma ko woon yàlla rek moo mat ñu ngi ñaan ci xayu xayum yàlla dimbali ñu waaye présidence commission yëpp maa ngi leen di gërëm rawatina ñi nga xam ne nii tey teew nañ fii Cheikh Ibrahima Niass maa ngi koy gërëm muy moom mi nga xam ne mi ngi fii ak Euh, Cheikh Baba Niang ak ki nga xam ne nii mooy euh, monsieur Pandé ñëw na teewal sëñ Abdourahmane ak docteur Diop yi nga xam ne mu yore na santé ñi am ngaan tamit te ñëwuñ Cheikh Gueye uutu na leen ñoom ñëpp ci suñuy kàddu ak suñuy wax. sëriñ bi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan ñu àgg ci jàmm gàmm gi ci jàmm ak salaam loolu la amoon lu muy wax ci ay kàddu. incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. may benn question. bisimilah gàmmu Medina Baye exceptionnellement mu nar mhm. euh, léegi am na naataango Medina Mbaye ko waxee wax inondation wax ay canal yoo nga xam ne jamono ci ndox mi dafay jaar ban appel ngay lancé bu tey tey baax na loolu li ma ciy wax mooy sant yàlla ki nga xam ne sos gàmm gi muy Cheikh Ibrahim góor gu nekk aussi fekkee waxtaanam mu nettali ne ma ne toog nañ fii di gamu, muy taw ñi ñuy dégg dégloo bàyyi na leen dal leen ngeen toog te ngeen déglu dañuy gàmm mu leen yéen baykat yee ngi nii bu bay bu ngeen di bay buy taw ndax da ngeen di bàyyi seen ji wala da ngeen dellu seen kër da ngeen da ngeen di toog ji seen ji tawte ba pare soog dal kon nag ki ñuy màggal mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon ñëw nañu fekk ñu waaye lu ñu fekk rek dañ koy def kon lu ci war ci matuwaay incha allah waxtaanee nañ ko ngi koy jël ñu ngi koy taxawee fii ci biir Medina Baye ak commission yi waaye itam ñaan nañ service itam lépp lu jël ci matuwaay jël nañ ko ñu ñëpp engagé wu nañ ci loolu incha allahu taala ta'ala Je m'appelle Cheikh Tidiane un des adjoints au président du gouvernement. Euh, Cheikh Ibrahim Nias, plus connu sous le nom de Baïman. Donc, nous, comme il l'a dit en Wolof, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, comme de coutume, nous, nous, sommes, nous sommes venus ici encore réunis pour préparer le Gamou international de Medina Baye. Euh, mais cette année, permettez-moi de me réjouir vraiment de la tenue de ce CDD avec le monsieur, avec monsieur le préfet du département, qui se trouve être euh, l'autorité administrative chargée de la mise en œuvre de toutes les mesures d'accompagnement que l'État doit prendre pour accompagner le comité d'organisation de Medina Bay. Euh, vraiment, nous le remercions vivement, nous remercions son engagement nous remercions et nous apprécions, à sa juste valeur euh, sa sincérité dans son discours. Avec l'ensemble de ses services techniques, on a échangé en tant que comité d'organisation unique, nous du côté de l'autorité religieuse, lui du côté de l'autorité administrative. Nous constituons une seule et seule équipe appelée à travailler pour un seul objectif, c'est-à-dire la réussite du Gamou de Medina Baye. Je pense qu'on a échangé dans des, conditions les meilleures. Euh, les services techniques présents ont tenu des discours vraiment qui nous rassurent. Euh, c'est vrai que le contexte de cette année est un contexte d'hivernage, mais comme l'a dit Cheikh Mamoun tout à l'heure, toutes les dispositions sont en train d'être prises avec l'autorité administrative pour que le séjour des pèlerins à Medina Baye soit des meilleurs pendant ces 21 jours qu'ils sont appelés à passer avec nous à Medina Bay. Par rapport à la conjoncture euh, qui se déroule actuellement dans notre pays, quel est l'appel que vous allez lancer aux autorités étatiques par rapport au coût euh, de certains dents euh, S'il y a un appel à lancer, je vais peut-être dire en français l'appel que l'autorité religieuse a dégagé tout à l'heure. Mais je pense que comme il l'a dit, nous lançons d'abord un appel à nous tous citoyens avant de s'adresser à l'autorité administrative, sachant que ce qui se passe dans notre pays est partagé en matière de responsabilité entre les citoyens que nous sommes et l'autorité qu'ils sont. Essayons d'être de bons citoyens. Inch'Allah, Dieu les meilleures autorités n'est-ce pas Ce qui se passe sur le marché n'est pas fait par les autorités, mais il est fait par des acteurs, des citoyens que nous sommes. Donc vraiment, s'il y a un appel à lancer, l'appel est lancé d'abord à tous les Sénégalais que nous sommes, à être des musulmans modèles, des citoyens modèles, pour qu'on passe une vie paisible ensemble.